Kan madame Ba Kan Ba Kan di defal campagne dem ba a noir Nouakchott Amadou Ba fen-fen yu tooy xet ci télé Sénégal ben voix ko ko jox sa ndey liggéeyut à part guinéen ni ñi guinéen yi nga xamni dina leen indi communauté bi ñi fofu xaram ak ma sax fofu nak mais bi mom xam ngeen ko légui lérna nañ ha ah donc jappelen ki suñu papa ji Amadou Ba jabar ji dima remercier trop parce que coow li bëri woon na ci mom ki zaina la tuddu ki mu ñu doon wax non di fen équipe bi ki zaina menen la tuddu tak nako bu la ba mu bayyi premier jabaram ba yaayu xaarim ba doome kharam ji nak bandi bi bandi salte bi dem ba Mauritanie tak ca kaw gaay yi naan ay tak suuf ak di dul kat bi kenn mënu ko défendre ki lam la mi ngi immeuble Atlantique ba ma génnee video yi di wane immeuble Atlantique daf ma woo direct ne ma moolaa yow da ngaa foog ni immeuble Atlantique noonu la mel ma ne ko ah mu ne ma boo duggoon ci boo yow ñëwal Sénégal moolaa invité euh, immeuble Atlantique boo fa duggee da ngay réer ma ne ko ah mu ne lépp ci biir man bu moo tax bu ma ne boo nekkee fi yow moom damay bugg nga xam bu la kenn nax yow xam dama bëgg nga xam man yow sama dara ump la wax naa la sama sama fans nga yaa ngi wane ay ay këru sama sama sama premier euh, kii bi nu sama wujju bi fii mooy waa kër gaa ngi nii ñii yëpp ay guinéen lañ xool leen ñii fees ci biir kër gi yëpp ay guinéen lañ Guinée lañ jóge nii ay kaar lañ leen di yabal nii kaar lii tey la tey heure ndogu xool leen Guinée yaa ngi fees dall biir kër Amadou Ba Sénégal jóg leen Guinée yaa ngi fees dall dugal nañ leen jox leen carte d'identité ku ci nekk inscrire la te bougé woo guinéen yaa ngi fee dell attention attention guinéen yaa ngi fee dell kër biir kër Amadou Ba fii nga xam ni moom mooy almadi mi ngi nii lii tey la heure ndogo la ñuy waajal nii ñi ngi fee lépp ñoom la xolle ñi ngi ne le oto yeeg lépp a ngi taxaw li kër Amadou Ba la gis ngeen ñi ngi nii ci buntu bi di dugg guinéen yaa ngi fee dell di doxantu ñi ngi nii ndogu baa ngi nii lii tey la am junni junni guinéen naa leen expliquer ñii ñëpp ay guinéen lañ amul sénégalais pël la ñuy làkk foofu kenn waxu fa wolof guinéen yaa ngi fee tel tel tel tel ñu ngi nii lépp ñoom la gis nga oto yi di xaar suba dañ leen di këpp ci bureau de vote yi ñoo leen defaral carte d'identité ñoo leen inscrit ci fichier électoral bi lépp am na ñoo xam ni démb waaw ah, moo won leen parce que bugguma rëcc parce que c'est très très très très très important dafa bari nag mais c'est très important ab dafa am ñoo xam ni Farba Ngom la ko jox démb Farba Ngom yóbbu leen Fuuta ana anamu lépp maa moom fii information yi nag ñoo bare bare bare bare bare ma ñëw rek ndànk mu dafay doucement laa gis démb yàpp dama ok Farba Ngom jeudi nuit Farba jaar na ci Amadou Ba Farba dem na Baux Maraîchers jël loué na soixante dix huit bus soixante dix huit bus 78 bus ces bus démb jeudi daw nañ démb jeudi vendredi Fayna chauffeur bu 900 000 francs CFA ceux qui vont descendre les votants sur le national 800 000 78 bus Amadou Ba jox gagne. alal gu ne dit mu 78 bus le louer. loué bu faites ci fond village lañ est di ay guinéen lañ fo village bi chauffeur bu ci nekk neuf cent mille la fay voyage boobu ñi mu war a tuur guinéen yi ñu war a tuur ci yoon bi votant yi ñu war a tuur ci yoon bi ñoomu chauffeur bi huit cent mille lañ ko fay huit cent mille ñi ngi fees dell démb ci guddi jóge nañ Dakar ñu dugal leen mooy ñu newoon kër Amadou Ba fees nañ soixante dix huit bus yoo xam ne yooyu soixante deux bus soixante deux bus 62 bis yoo xam ni dem nañ tuuri ji nañ leen fii nga xam ni moom mooy euh, frontière euh, Mauritanie Fouta kër Amadou Ba lañ nekkoon am ñu fa des ñoo xam ni suba lañ leen di yóbbu ñu war a dem voté ji fii nga xam ni moom mooy euh, communauté guinéenne fum mu gën a bëri moom mooy ay ay ñaay cokkeer rëbës ay fu ñu gën a bëri leen ne war donc ngeen def attention léegi nag dafa am ay Aïssata Biliba déjà dama leen di woon rek déjà lu ñëpp ñu ko wër ñëpp sax <laughs> ay ay lañ léegi nag kaay ma woon leen communauté bi waaw waa ji ñu doon wax moom yaakaar naa li moom pare na waa ji ñu doon wax naan ay charismatique ay leader nangam moo nekk nii charismatique borom charismatique moo nekk nii léegi si carte de séjour rek lu ne leen leen wutal xaaral rek xaaral rek yi def nañ fa délégation bu neex waay ak moto yeeg toj nañ foofu noonu Guinée ñu ngi nii xaaral ma dagal leen video yi rek romb deuxième dame moom xaaral ma romb la fii voilà xool leen gis ngeen ni ñu mel ci mbedd yi ñu ngi fees tepp vidéo la ñu ngi fees tepp ci mbedd yi lii buntu kër Amadou Bala oto yi xool leen nu ñu def dell ñu ngi fa fees fas yéene dem tuuri gaa yi lii ci kaw la ca kaw kër ga mi ngi ca kaw waaw ren rek gaa yi dañ ko duy ba mu fees kër gi dañ ko duy duy ba mu fees des centaines de milliers de guinéens la gars yi indi indi leen déporté leen indi leen ñoo nekk ni allahu akbar lii buntu kër Amadou Ba ñu ngi fees tepp nu mu demee ni gars yi nga kii de acca ay ca ñu dem da nga fees tepp buntu kër Ba xool leen allahu akbar ni fa tëpp kër Amadou Ba ku fa dem tey li ngay jàpp ci ni mun nga faa jàpp camion guinéen ak guinéen nii fa tëpp buntu kër Amadou Ba ak biir kër Amadou Ba mais dafa am lu lu loolu di signifier kër gi mooy kër Amadou Ba bi Parcelles Assainies bu mu def siège rond point case ba kër gi kii tam moo moom kër gi ngeen di gis rond point case ba di Amadou Ba moo ko moom immeuble bu ngand bi ngeen gis ni mu def fa siège ba ak moo moko mom ci yumu sacc ay milliards mais dañuy dem mo won len parce que bëggu mo raw euh, fa dafa am déjà li Amadou Ba def tamit scandale bu graw ngi ni Amadou Ba def ne man lan motax sama sama sama xam wóor na ma dama tej dama tej ben ki parce que audio waron waroon war genn quoi xoma dama damaa sama audio xoma mo nga ma ngaaka laa nag de portable bi audio yi du ñu génn xaar ma ki len fi na mi ngi fii waaw xaar len rek ki chaka Amadou baye la may yi talaguma len yéen may len ma tuuti rek Amadou Ba tax ak bëgg jigen mo ak Moustapha Ba ak ñoo bëgg jigen du dugg nak ci ci ay domam quoi parce que xam nga gars yi ne ay domi doom yi bokkuñu japp ci ak nangam nangam du dugg ci ci ci ay domam ok ya pas de problème wa man man xaar leen ma ñu waay voilà kër gi bon ñaaral bi dafa ma doon wax quoi parce que dama woné kër Amadou babi kër këru Amadou babi piscine beeg yoy moy fu premier jabar ci nek mais comme ké mom da ñom dañu mëna wujjé ay affaire ñak fayda yoy mom tam momay bëgg won ni ne lepp nga ci biir li kër Amadou bala li mom moy kër bi Almadi li du lii du hôtel de sama gaay li kër Amadou bala li kër gi la leen won légui gis nga fi kër gi mom la leen won légui peul foutay nekk ci biir légui wan na leen ko peul foutay nekk ci biir kër gii kër Amadou bala mom mo nekk Almadi kër Amadou bala do kër gi nga di gis ni kër Amadou bala kër gii gis ngeen lii li mel ni dëkk kër Amadou Ba la sax amul lii li ngeen di gis yëpp ngand bi yëpp kër Amadou Ba la moo am ascenseur bi léegi nag comme bii laa wone deuxième jabar ji moom tam comme day wujjante nekk fi indi ci coow ne moom tam Atlantique dama ko war a wane nangam nangam loolu moo tax ma génne leen Atlantique quoi instant dafa voyagé mais bu fa nekkoon léegi moo wan leen Atlantique dafa voyagé dafa dem Mauritanie fii mooy Atlantique moom tam fii la dëkk pour defante pour wane ni moom tamit jëkkër ji jox na ko nga ndam maami kii moom biir ville la dëkk nee na moom vie bi dangay ngay jàkkaarloog gore voilà malaa man kooku ëppalewu ma dara man maa ngi nii sama kër googu noonu ma fi dugaloon tey da ngay réer dama fi nekk dama dem Mauritanie woon mais sinon dama la woon kër gi sur terrain la am li mu ne ma fi nga woon noonu mu ne xaar lii mu ma jox nii anu lii vie bi la lii kër gi mu ne nii lay toog jàkkaarloog gore lii mooy lagon 1 mu ne ma fii boo fi ñëwee bés boo ñëwee Sénégal dinaa la invité fi nga ñëw dinaa la woon boo fi duggee tiit da nga fiy réer mu ne ma fii mun nga dugg ci kër gi cinq heures de temps di réer nee na fii lay toog jàkkaarloog gore lagon un en face nee lii mooy vie bi moo nekk nii kër gi booy dugg eh, tant que jëluñu say empreinte a dugg ci kër gi kër gee nekk nii gis ngeen géej gi moom moo nekk nii kër gee nekk nii gis ngeen nu muy jàkkaarloo Amadou Ba ko moom te am na un Atlantique am na deux bu muy tabax léegi nag dañuy dem ci ay Aïssata Bili Ba parce que donc xam leen ni Amadou Ba premier jabar ba ñaari jabar ku ci nekk jox na la ay pale ay milliards yaa ngi lekk ba suur naan ba màndi ñaareel bi daal namul coco comme ni ma ko waxee namuma coco té néna na takkuñu ko takku suuf na ngeen xam loolu ku leen bëgg a fooyee saaga leen ko ndem ay affaire sexualité intéressé na leen Amadou Ba ñaari jabar la am Aïssata Bili Ba guinéen Hawa Mamita Kan mauritanien mauritanien bi dem na Mauritanie di campagne Amadou jox nako ko bu bari jël na ay bis dañuy duggal ay mauritanien yuñ jox carte d'identité yuñ duggal ci fichier électoral bi yo xam dañ leen dem touri ci frontière yi dañuy voter ji moom Hawa Mamita kan nee na moom yor na délégation am dajale na leen démb def na concert en Mauritanie ci hôtel bu cher ci capitale bi Nouakchott tey jii day dem dëkkam dëkkam fi mu dëkk fi ñu ko takkee fu ko Amadou Ba ñëwee takkee foofu lay dem def fa bis yu bari ñu def ko ay oto traversé Rosso dugg Rosso Sénégal nee nañ ñoom suba fas yéene na ñëw foofu na waa Rosso Sénégal taxaw ñoom mauritanien yi dinañ voté ak mauritanien yi te ki nga xam ne mooy Hawa Mamita Kane dina leen fa indi ak ay bis ñu voté xam nga loolu leer moo nekk nii moo nekk nii di def ay mi nii lii mauritanien Mauritanie la kon kii mi ngi def fay na ay artistes jox na leen ay millions ñu fas yéene ñi ngi koy woy di woy jëkkëram donc ñii dañoo fas yéene def di n'importe quoi suñu réew ay guinéen yu ñu jël ay mauritanien yu ñu jël ñu bëgg a taal suñu réew ñun Sénégal ñun Sénégal waxuma bépp guinéen waxuma gépp mauritanien ay mauritanien yu ñu jël wutal leen carte d'identité dugal leen ci fichier électoral bi du yàpp leen ci ay oto ñooñu laay wax bi bien indexé ñooñu ñoo nar a ñëw ndax ñaari jigéen yuy wujje kii di guinéen kii di mauritanien ñuy wujje biir senegal digg senegal seen jëkkër sàcc suñu milliards ñu bëgg a wujjee pour ñëw toog suñu palais est-ce que benn sénégalais na nangu loolu est-ce que seen ndey yi liggéey nañ lu war a tax ñu def leen lu mel noonu est-ce que seen baay yi liggéey nañ lu war a tax ñu def noonu est-ce que di ngeen ko nangu est que di ngeen nangu palais bi am benn Mauritanien ak benn Guinéen bu jubóowul seen jëkkër di la nëbb naan benn la am amul ñaar ku ci jox la ku nekk ay millions ñuy dem kii dem jël communauté am guinéenne di dugal këram kii Mamita dem jël communauté guinéenne euh, mauritanienne am dugal këram ñu fas yéene dugal leen ci frontière Sénégal yi ñu fas yéene voté. Farba moom yóbbu na 72 bus 62 bus yu ñu feesal dell ay Guinéen côté Fouta am ñu fa nekk ci kër ga est-ce que di ngeen nangu loolu parce que affaire bi doo indexé rek ay Mauritanie ay Guinée Guinée Guinée Mauritaniens itam noonu la leen jëlee Aïssata Biliba nu mu jëlee Mauritaniens yi. Nous sommes les Guinéens, non la Mamita donc étranger Nous wax du ay Mauritanie di non non non on respecte le peuple euh, guinéen et le peuple malien le peuple mauritanien amna ay gor wa wa Guinée kontaan nuñ ci guinéen yi nga xamné dañ leen jël jënd leen nuñ ci de billahi di di big muslim yone na ma audio amna na lu ko metti ci guinée yi té mom en tant que rappeur muslim guinée di guinée juddoo Sénégal màggee Sénégal jangé fa néna na Mollah dama la yone audio bi pour nga tagal mako sama mbokk guinée nañ lank liñ leen bëgg def lo nañ génn ci mbirum politique Sénégal jël nañ ay Mauritanie guinée ay sata biliba jox leen xaalis ñu dugg ci média yi na ay voter leen li ak ñu dugg ci ay kaar ak yoy muslim rappeur artu na ko ni Aïssata Biliba amé plus de 100 bis yuñ ko jox pour ñu dugal ci ay Guinéen dem voter loo leen akan la Mamita kan tamit ñu jox ko plus de 100 bis pour mu dem jël Mauritanien yi ngay leer légui ñu dem fi lan moo ay la kan mooy Aïssata Biliba ñu dem ci Aïssata Biliba parce que il faut ngeen xam kan mooy Aïssata Biliba ay Aïssata Biliba guinéenne la léegi dafa dafa am lu muy représenté ci communauté guinéenne bu Sénégal Aïssata Biliba c'est leur présidente moom ay sata bili Biliba présidente la ci communauté guinéenne bi communauté guinéenne bi moom lañ jëloon Amadou Ba di leen proposé maanaam bu ñu gañee ku ci nekk am nga kër li nga vidéo boobu gis ngeen ko non mu toog naan boo leen gañee boo leen ma fexee ba ma gañee ku ci nekk ci yéen am nga kër ay Guinée ay ñooñu la jël di leen gëm loolu kër yow moomoo Sénégal nga ne buñ la fale da jël ku ci nekk ci ñu nga jàkkaarloog jox jox leen kër loolu rek bu ci Sénégal amee dara dina garaaw donc euh, mais bugguma bugguma bugguma raté ñi ngeen di gis yëpp ay Guinée Guinée ñi ngeen di gis ñii ay guinéen lañ yu Aïssata Bili Ba jël yóbboon leen soraanoo ñii ñëpp ngay gis délégation bi ay guinéen ñoo fa newoon ay Guinée ñu ko wër guinéen kese la jël da di xool kan pour cent ndreng ñoo fa nekkoon keetam jël ay Mauritanienam léegi def maa la ma tuuti Ok, parce que beaucoup me connaissent quoi. Les documents sont. Il y a beaucoup de documents, gars. J'en ai plein, plein, plein, plein, plein. Ah, il y a une dernière opération rebout de mon opération rebout de mon métier. as livre àdduna ngay àdduna livre ngay yor da ngay bind bind information as sa kat tu as tat ante lii war naa jeex ba ma dund tuuti de ah billaay wallaay sénégalais yi war nañ yërëm seen bopp de ay sàcc rek gaayen te coono bu ñu daj ñoom la quoi sàcc ay sàcc di sàcc di sacc di sàcc di sàcc rek ñoom ñu toog nii di xoole rek jaa pap ay waay yàlla lii changé waay Aïssata Biliba ah waay ana document bi waay ana document bi waaye kii amul amul amul amul Euh, ok non qui est la mauritanienne la deuxième femme Mamita Khan, d'origine Tekane non loin de Rosso Mauritanie actuellement ils sont à Shore, en train de préparer les bus pour organiser pour aller à Tekan, voter voilà donc wa Mauritanie tamit dañuy dem fasiyene dem tok tekan rosa Mauritanie rosa Sénégal dañu fasiyene voter pour Amadou Ba ñoo ñep dañ leen wutal ay carte d'identité wa Mauritanie tamit wutal nañ leen carte d'identité tugal leen ci fichier électoral bi ñu leen Amadou Ba yombalal pour ñu voter pour Amadou Ba donc du di Guinée rek du communauté guinéenne bi kese il faut ñuy wax fep parce que ñu ñëw di indexer ben communauté kese na ñi kese la di non non non y a des Mauritaniens y a des Mauritaniens ñi yo xamni dañu voter ci suba tekan Rosso Mauritanie yoo xam ne jabaram ñaareelu jabaram moo ko waajal pour dugal leen fi waaw pour yóbbu leen Sénégal pour voté loo leen am y' a une vote mauritanienne y' a une vote guinéenne ñoo ñëpp ñi ngi fi yoo xam ni Amadou Ba jox na leen par carte d'identité dugal leen ci fichier électoral ñu fas yéene pour voter pour Sénégal pour pour pour seen te loolu yéen ko war a bañ kenn du leen ko jàngal yéen a war a dem ci bureau de vote yi taxaw jàmmaarloog ñoom. ne kenn duñu jël sañu fichier électoral di fa dugal ay Mauritaniens ay guinéen ñu bàyyi seen dëkk ñew di bëggal basculer sañu fichier électoral loolu lañ bëgg def loolu ñëpp dañ ko wara bañ ni ko bëggee di ci raayante noonu la ñeneen ñi di ci wara a raayante ok te kan Mamita kan ma nga fa dajale na bis ya noir shot def ci ay Guinée ay Mauritanien ay Mauritanienne yu am ñu jox carte d'identité Sénégal ñu inscrit ci fichier électoral ba ña nga noon di dem Tekkaan ña nga noon di dem Rosso Mauritanie pour suba ñu voté pour Amadou Ba bépp sénégalais bu fa nekk na ko bañ. Guinée yi tamit jël nañ ñi nga xam ne mun nañ leen jënd parce que société boo dem am na ay bañkat am na ay ñu mën a jënd donc ñuñ mën a jënd rek lañ bañ boolewuma la ci lii benn guinéen boo xam ne nangoo ko la jënd wala ngay dem di yàq wala ngay nangam boo kon indexé wu ma ay communauté ay nit principalement la indexé nay leer ay nit laa indexé ay guinéen yu nangu ñu jënd la ñu yóbbu la ci ay dëkk tëj la fa donc du guinéen am na gor guinéen yu nekk Sénégal am na guinéen yu takkuñu ci am na guinéen yu set wecc nañ ko waxte dee nu sénégalais amee ñu baax la guinéen am ñu baax am na ay guinéen yoo xam ne il faut pas dire nanguuma ko guinéen guinéen guinéen guinéen yi ñu jënd comme nu amee ni ñuy jëndee guinéen noonu la amee nu ñuy jëndee sénégalais sénégalais yi jënd kon la ñuy wax guinéen yi jënd yu Amadou Ba jënd mauritanien yi nga xam ni Mamita kan moo leen jënd nay leer man je ne suis man en tant que rappeur activiste combattant panafricaniste man lu ma gëm mooy Union africaine donc je ma indexé ben xet di wax ay guinéen yi guinéen non guinéen amna ñu gën sama nday ci guinéen amna ñu gën sama baye ci guinéen amna Guinéens guinéen ils sont loyal légal digne kat lañ Quand je parle de les traîtres guinéens yi trahiront président Guinée Sékou Touré les traîtres guinéens yu Sékou Touré doon gassal pax dellu ci tëmbal les traîtres guinéens ils sen mam trahir la Guinée Je parle des traîtres mauritaniens. Donc je ne parle pas à la communauté guinéenne. Encore une fois, et je le dis, eh, parce que je suis pour le panafricanisme. Je suis pour la Guinée. Je suis pour le Mali, pour le Burkina, le Niger, l'Algérie, la Mauritanie, etc. etc., etc. diaboliser euh, toute une communauté non je ne suis pas dans ça je suis panafricaniste lu ma gëm mooy Afrique uni la Guinée doit a à nos côtés le Mali la Mauritanie la Guinée ñun ñëpp dañoo war a constituer une force force moom moo ñu may doole. loolu la Europe def noonu la Afrique def noonu la Amérique def du moins noonu la Europe def noonu la Asie def donc ñun tam dañoo war a am loolu donc attention attention am na ay traîtres guinéens yu ñu fii. pour ñu yak Sénégal ay traîtres guinéens. ñu indi fi pour ñu Sénégal ay yu pour ñu basculer attention attention je ne suis pas là pour dénigrer une communauté mais des lâches qui sont parmi cette communauté yu ñëw ci réew mi bu ko suñu il faut ñu arrêter ko il faut ñu arrêter il faut ñu arrêter je suis pour la nation unie la nation donc ay Aïssata Bili Ba yaayam Guinée la papaam newoon naa leen chemin cheminot chemin de fer la newoon cees fi nga xam ne am nañ fa kër donc euh, papaam bàyyi leen fa ils ont beaucoup galéré ils ont beaucoup galéré ak ay sëram am na benn sëram boo xam ne sax sëñ Modou Kara moo ko takkoon Euh, ay yeneen sëram elles ont beaucoup galéré quand même donc Aïssata Biliba mooy présidente sénégalo-guinéenne jabaru Amadou Ba mooy présidente des sénégalais guinéennes du Sénégal mooy maanaam mooy présidentu bépp guinéen biir Sénégal donc moom nëbbul guinéen bu mu doon guinéen bu mu doon dafa dajale guinéen sous forme de euh, groupement en tant que présidente des guinéennes de Dakar et du Sénégal mu def len mu di financer une communauté de femmes guinéennes au Sénégal mo len di Je mo koy diriger mom Jabarou Amadou Ba Aïssata Bili Ba di len promettre ay financement une fois que Amadou Ba donne président de la république du Sénégal promettre nous mots et merveilles jële na leen Guinée dugal ci ay bus depuis pas mal de temps Inscrire les dans ci fichier électoral Vous wutal carte d'identité yu musul de Sénégal yu xamul Sénégal bokk en Guinée yu màggee Sénégal judo Sénégal yaro Sénégal Vous c'est des Sénégalais ko Judo Sénégal màggee Sénégal am kayitu Sénégalais Sénégalais sénégal nga juddoo bu sa papa ne Guinée sénégal nga juddoo maa ngi yëpp am nga ko kon war nga sentir sa bop ci bir sénégal donc Aïssata Biliba di leen xamal ni moy la présidente des associations guinéennes au sénégal di leen financer te di leen promettre que bu ki nga xamni moy mooy jëkkëram gagné Amadou Ba dina leen jox ay kër dina leen jox ay titre foncier que qu'il y des centaines de milliers de titres fonciers yu bir Sénégal ku ci nek dina la jox ben titre foncier une association mouvement guinéen guinéen la communauté guinéenne De leen di len promettre di la femme Aïssata Bini Ba qui se sent pas guinéenne sénégalaise en complicité de son mari Amruba. ñu ngi inciter les Guinéens et les Guinéennes qui sont au Sénégal de se sentir maltraités moo tax dañuy teel a gaaw di ñëw di diaboliser non man Guinéen laa non moo laa war a wax nii non moo laa nawee nangam fekk ñooñu bokkuñu ci dafa am yeneen Guinéen yu foowee ay Guinéen yeneen Guinéen yu foowee ay Guinéen ak ay Guinéen yu foowee ay Guinéen donc di leen gëmloo ni Sénégal dañ leen a bañ dañ leen di maltraité dañ leen mal considéré di leen gëmloo ni il faut ngeen profito ci alal gi pour mën a dellu Guinée investir fa ñu bëgg a nekk fii tam toog fii Amadou dina leen jox ay terrain loolu moo tax Amadou Ba ne leen boo leen ma gañe loo ma gañe dinaa leen jox ku ci nekk kër dajaloog ay junni junni nit ay Guinéen ay sénégalais ne bu la Sénégal joxe réew mi ku ci nekk ci ñoom dina am kër loolu vidéo la yéen ko gis mu toog ci taabul ñu wër ko mu ne boo leen gañee boo leen ma gañe looyee ma nangu Sénégal dinaa leen jox ku ci nekk kër te baayam pauvreté la dee yaayam ci pauvreté la dee kooku nee na bu ñu ko gañee bu ñu ko gañelee fii Sénégal mu jox leen ku ci nekk kër loolu moo tax nag Guinée yooyu noonu gar ci seen bakkan sama gars yi ne <laughs> bu dee yow Guinée bi lañ jëlee Guinée indi ko ñu proposé ko ne ko Aïssata Biliba ne ko boo ma gañee yow dinaa la joxi financement jëkkëram ne bu ma gañee dinaa leen jox ay terrain jëkkëram ne yéen Guinéen yi boo leen ma gañe looyee fii ci Sénégal ku ci nekk di nga am kër ah mais loolu leer na ñoom nëbbuñu ko ñëw na taxaw ci télé ñëpp di seetaan ngeen gis ko vidéo boobu ñëpp gis nañ ko mu ne bu ma leen boo leen ma gañe looyee ku ci nekk am nga kër ay Guinéen lay waxal sa de Ba ne len bo len ma gagné ñu bëgg a dellu Guinée ma jox len ay financement ñu bëgg a fi ñu jox len ay kër ak ay terrain jox len financement ñu tabax mais lool motax ñom ñu gar ci sen bakkar leer nak mais sénégalais tam lan ban lan mo ci sen sen taxaway man juruma sénégalais duma sen papa lu ma mun moy wax len li fi nek sénégalais yi wara a am sen fulla ak sen fayda bu len Guinée ëppé fulla ñew sen biir dëkk ñu proposer leen kër proposer leen ay terrain ak financement mu jaral leen dugal leen ci yëpp leen ci ay oto tuur leen ci bureau de vote yi ñuy voté ngeen seetaan leen mais loolu lan laa ci mën mais laaj naa leen yéen lan laa ci mën mais mënu ma ci dara bu boobaa yéen a ko accepté ku joxe sa baat ñu rendi la waroo yuuxu bu sénégalais yi accepté ñu jëlee ay guinéen def leen ci ay oto ne ñoom jëkkër ji ñëw Amadou Ba ki bëgg a doon président taxaw ne bu ma gañee jox leen kër yéen ñëpp jabaram ne bu gañee bu sama jëkkër gañee ma jox leen ay titre foncier bu sama jëkkër gañee ma jox leen ay financement ngeen tabax ñu bëgg dellu Guinée ma jox leen ñu dellu Guinée waaye léegi yéen sénégalais boo leen toogee seen bureau de vote ñooñu romb